suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm fii ci seen chaîne diaspora bi TV ay jàmmaarloo moo amoon ci diggante ay nitu Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf sar loolu nak moo ngi xewee ca permanence APR Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf sar ñoom ñaan ñëpp dañoo bëgg a nekk président ci élection présidentielle bu 2024 ndaje bi nak amoon fële ca permanence APR bi nak solom moo doon wane ni responsable politique yu nekk Dakar ñoom daal booloon nañu doon benn pour jëmmal le président décidé pour élection 2024 bi naka noonu ab résolution sax xaatimoon nañu ko kii di Seydou Gueye moo ko waroon jàng waaye balaa boobu lañuy ñuy faree ak amadu Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr tàmbalee indi ay jafe-jafe ci kaw loolu la mbir mi jaxasoo ci xibaar yu ñu am nag nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr moo xamle ni dakaar nar naa am ñaari candidat muy moom ak Amadou Ba si noonu la Amadou Ba jàng daggee ne ko moom du candidat moom lu président décidé rek si lay dox ndaje bi nag lenn waralu ko woon lu dul wane seen ànd nekk benn waaye si mujjantal bi ab féewaloo la wane loolu nag dafay wane coono bi Macky nara nekkee bés bu waree siiwal ki mu tànn pour mu jiite Benno Bokk Yaakaar ndax Macky ku mu mën a choisir ñeneen ñi soo moytuwul comme li xew ci permanence bi lañu nar a doxalee lii moo fi ruus ci ay xibaar suñu mbokk internaute diaspora bi TV ñoo ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf.